day tax ba gel yi bu ñu demee suba dañuy ñëwaat. mais naturellement. produit bi ban ban façon produit bi moom la. dañ koy jaay dañ koy jaay produit bi jigéen ñi ko utiliser wala góor ñi. man xaw ma. non loolu dinañ ci ñëw de. mais moom en tout cas ki ma ko wax góor moom ko wax. parce que parce que parce que loolu dem la. parce que jigéen ñaa nga jël ay produits di ko utiliser. déglu ma ak yeneen sax sax léegi mënu ma concevoir man mënu ma concevoir ay étranger ñëw fii. waaw suñu gel yi langal leen ko topp leen. si yaa ngi dégg ñoom ñoo ay produits yi def non dafa am na. ñoom dañu mystique wala lan. du question de mystique de du question de mystique. loolu produit ay affaire de pharmacie la bokk. produit aphrodisiaque ay garab la yooyu yooyu ñu jaay yaa ngi dégg ñoom yooyu la ñuy utiliser. ay ñàkk jëlee nag langal leen ko waaw ay ñàkk man maa la ko wax. maanaam dañu dañu dañu sax wala lan. comment ah loolu côté yokku côté yokku sexe la ñu. waaw buñ ko dóoree buñ ko dóoree seen action yi. waaw voilà buñ ko dóoree seen action yi. affaire bi day day mat. yow est-ce que waxuñ la sa léegi sax non man non man non man. non man wuy ma. <laughs> Ah, mais Kodja le problème mooy il faut ngeen bàyyi ngeen di dugg. Eh, eh, yow est-ce que yow sa gars yooyu noonu waxuñ la secret yi nekk ci biir. non man waxuñu ma secret parce que man a ñoom dañoo dëkkoon may gis chaque jour ñuy gunge. waaw mais nit ki boo ko gisee chaque jour may gunge. ah waaw gunge woo ci. non man man dafa ma jaaxal ci côté man su may gunge ñoom duñu ma gis bañu gunge bi de parce que dafa man su may gunge. man su may gunge man yow ki nga wax na la man su may gunge ah ñoom duñu ma gis mais. dafa nek lo xamni man chaque jour man man Sénégal la man côté fréquenté man fay chaque jour. affaire la côté wala. non ma ñu affaire la wala la ak côté mais côté la carrément nit waxuma la ni nga non non non man mau dund loolu man dama mau man dama naturel te man sax côté boobu man duma ko côté boobu man duma ko dund quoi xam nga àdduna bi lu ne defee am côté boobu buy ma buy ma xam nga déglu dama waaw bu ñu demee ba seen affaire lase fu ñu jëm. lase mooy. waaw parce que produit yi ñuy nga ni yow. dafa jigéen ñoo xam dañuy jënd ndaw. Hmm. jënd ndaw comme si ñu leen moo ne ko xam nga bu ñu leen di tëddee. bu ñuy bu ñuy tëdd bopp pour te dire. c'est-à-dire que naturel bi ci yéen la ëppee. Ah, man boo man li gën a taamu li ma gën a neex jigéen mooy jigéen bu naturel jigéen bu xeesalul. Mm. jigéen boo xamante ni dafa naturel jigéen bu naturel bala nga koy xam mu yeewu ci laal muy door a yeew bu deful dara ngay xamante ni kooku dafa naturel mais jigéen yu daje ci mel yi nii man du ma ci wax kenn te du ma ci jéem a. ak kenn du ma ci jéem a euh, intercepter kenn. que xam naa ne naturel la ñu. mais bu ma xoolee seen defaru rek. waaw léegi yow loolu soo ko jëndi. Mm-hmm. il paraît même bu fekkee ne yow sa sa sa borom kër tëddoo ak moom. Mm-hmm. ah am na ay risques yu ci nekk léegi lu ko jar. Mm-hmm. xaru man yéen laa koy laaj yéen jigéen yéen laa koy laaj yéen laa koy laaj. parce que ça existe là. mais yéen laa koy laaj yéen laa laajte yéen. am na ñu koy def am na ñu koy def am na koo xamante ni moom loolu moom lii ma lay wax. loolu li ngay wax dëgg la ndax loolu am na fu mu xewee. am na jigéen am na jigéen ba nga xamante ni bi jëkkër yi dafa war a ñëw woo ko téléphone. ba mu woowee na ko maa ngi ñëw dafa dem hôpital ñu ñëw ko ñëw lan dañ ko ñëw waaye léegi loolu nan léegi nag jëkkër ji ba mu tëddee ak moom dafa sañe sañe ba nga xamante ni bii danoo dem ba sañe bi da leen a jaaxal ñu yóbbu ko hôpital ñu ne kii dañ koo ñëw xam nga loolu naturelul naturelul naturelul